tour de village, nous faisons vraiment euh, euh, découvrir aux clients la, la, forêt des fromagers. Et pour finir, au niveau du puits Elage Omar Foutiutal, là où l'homme euh, religieux a fait un petit tour pour vraiment terminer sa mission au niveau terrestre. Voilà, nous embarquons pour la destination des îles, dont la principale destination est l'île de Carabane, qui est l'île de Gorée de la Casamance. est connue comme la première capitale de la Casamance, où la première église de toute la Casamance, construite notamment en 1886, mais qui a été réhabilitée en un cap au niveau du de Carabane pour découvrir la tombe du capitaine Aristide Proté qui a été La deuxième journée, elle a été dédiée essentiellement à la découverte Donc, dans la matinée, nous prenons rendez-vous directement avec le roi en personne qui nous fixe un rendez-vous et qui a permis vraiment à ces touristes de découvrir vraiment la vie traditionnelle des Djola du royaume d'Oussouy. Au niveau de Oussouy, l'économie tourne autour de l'anacarde, c'est-à-dire de l'étape. Toute la chaîne de valeur est maîtrisée dans, euh, dans cette commune, notamment à Saint-Galen, qui est un village qui appartient à la commune de Haute-Côte, où nous allons découvrir chez l'unité de transformation euh, Djamakoun. Je vous invite à venir en masse parce que effectivement, mais c'est super. Tout ce que vous voyez sur Instagram, c'est beaucoup mieux en vrai que sur les réseaux sociaux. voilà loolu nekk en fait élément bi nga xam ne rek dina leen jox un petit aperçu par rapport ak activités yi nga xam ne boo leen demee visiter Cap Skirring que ce soit votre première fois ou pas euh, mun ngeen ko def mais profiter si occasion bi pour euh, remercier Idi bi nga xam ne moo doon wax si vidéo bi euh, nekk sunu benn partenaire boo xamante ne guide professionnel la boo fa ñëwee moom moo lay defaral circuit wan la vraiment lépp li nga xam ne côté histoire côté tradition war nga ko fu mën gis et juste pour retracer la vidéo ni mu ko compagnie locale du ma citer seen pour ne pas faire de la publicité et bu ñu eggee directement on a été accueilli vraiment euh, avec un bel hôtel benn cocktail de bienvenue foo xamante ne gars yi dañuy yéeg en fait si garab yi pour dagg ay oud ay coco yoo xam ne on te les comme ça de l'eau très très douce euh, yendu si hôtel bi ba ngoon après activité yi mun a commencer et comme ni ngeen ko gisee si vidéo yi en fait Casamance bëri ay musées yi nga xam ne c'est des musées nekkoon sax à quel point euh, que jigéen en fait kenn kenn du ko saaga foofu ca Casamance te am na rek en fait ay garab yoo ne góor sax amul droit en fait romb ci côté bi c'est uniquement xamante ne jàng nañ fa lu bëree bëri bëri ñuy remercier rek conservateur bi nga xam ne moo koy gérer euh, mi ngi tudd Karafa ba nga xam ne moom tamit à chaque fois bu ñu demee foofu il prend vraiment le plaisir de partager son histoire de partager lépp li nga xam ne war nañ ko mën a jàngee foofu euh, bu ñu jógee ci musée projet bi aussi euh, dem nañ Jembereng euh, yaakaar naa ne Jembereng aussi euh, village natal de Mezzo Diatta ku fa musul dem tamit mus nga ko dégg à travers sa célèbre chanson mu nekk tamit village bu calme boo ne vraiment jar na rek en fait def détour et à quelques pas du grand fromager bi nga xam ne moo nekk ci dëkk boobu noonu y a un bi nga xam ne mooy le puits de l'âge Omar Foutiyou Tall parce que l'histoire dit que bu mu jógee dans les falaises de Bandiagara la réapparaître réapparaître la première boobu benn dame boo xamante en fait foofu la doon taxaw euh, si j'ai envie de tromper dans l'histoire en tout cas dafa nekkoon benn site boo xam ne euh, c'était sec de base parce que amul ndox amul dara mais vu que jaabante yi bëri woon foofu en fait à un moment ne dame bi euh, boo fi ñëwee suba dañu gis ne en fait dina am benn source intarissable boo xamante ne fi mun di root léegi nag endroit boobu léegi moo nekk benn endroit sacré boo xamante seen yoon ba tax na rek ñi ngi naan d'habitude sax boo fa demee ay célébrité yu bëri dañ fay wàcc te am na tamit benn màggal boo xamante ne annuellement dañ ko fay def ak euh, famille El Hadj Omar Foutiyou taal alors bu ñu jógee foofu aussi ñu ngi dem benn dëkk bu tudd Catacoulous Catacoulous en fait c'est comme l'embarcadère qui permet un peu de faire le tour des sept îles de la basse Casamance parce qu'en fait Casamance aussi dafa xaw yaatu te bëri île mais île bi nga xam ne moo si gën a intéressé c'est l'île de Caravane Caravane boo ko déggee c'est un peu en fait comme l'île de Gorée mais bu waa Casamance parce que aussi euh, traite négrière bi am na lu bëri vraiment village bi mais on a été aussi beaucoup touché par le fait que village dafa nekk village bu meññ boo xamante ne tout ce qui fruit dafa bëri garabu mango yi moom da ngay dox sax affaire yi di daanu sa kaw tellement dafa bëri bëri bëri et puis on a eu l'honneur aussi de tomber sur un mariage les gens étaient tellement accueillants que euh, dafa mel ni ñun ñoo moomee woon xew bi di souhaiter rek heureux ménage à la fille là qui se mariait ce jour là parce que dañuy ñëw en fait bi fecc nañ fecc yëpp door di dem euh, di ko euh, ko doon toujours sur ce circuit-là euh, ñu gis ne am na benn cimetière bi nga xam ne moo fa nekk mosuma gis koo xam ne dañ ko suul fekk dafa taxaw parce que d'habitude bu ñu nee suul suulu tëdd la respecte ay normes mais Aristide Protet il a tenu à être enterré debout parce que woon na rek comme océan Atlantique fale ennemis yi doon jaar pour ñëw attaquer ñi nga xam ne ñoo nekkoon foofu moom il a préféré en fait que ñu enterre ko debout pour mu mën a continuer jàkkaarloog ennemis yi ah, parce que en fait tomb bi boo demee dafa nekk en fait benn genre tube bu mel nii mais boo xamante ne day rectangulaire ci kaw nii léegi nag il a été enterré dugg nii ñu def nii ay cage doo mën a dugg nag ci biir mais en tout cas di nga jàkkaarloog benn genre édifice bu lay wan ne rek en fait euh, que moom moo fa nekk et que ba il a pas été enterré euh, couché toujours dans dans le circuit apit euh, aussi euh, dem nañu seet yi nga xam ne mooy le roi du sud parce que yaakaar naa ne boo ñëwee si dëkk tamit baax na nga dem nuyoo ji ki nga xam ne mooy euh, chefu dëkk ba may rappeler aussi de Casamance dafa bëri en fait ay roi mais roi bi nga xam ne mooy chapeauté lépp en fait mooy le roi du sud mi ngi tudd Sibilu Mbaye Diédhiou avant nag ñu ko doon introniser mi ngi tuddoon Olivier jéeju mi ngi nekkoon un citoyen lambda jusqu'à son fait que c'est le janvier boobu lañ intronisé depuis lors en fait moom moo fa nekk am aussi ay réalités yoo xam ne war nañ ko mën a booy dem seeti ji bi parce que boo fay dem amoo droit sol yëre bu rouge parce que moom déjà son chapeau il est rouge am bu fekkee da nekk jigéen ka ngay gis say mbaax aussi waroo fa dem parce que baaxul si yow ñu ngi naan boo jëlee risque bi nga def ko après mun nga fa jaar en fait dootoo amati doom ba faaw ba a euh, nga dem doog a seet si ñu am aussi benn grande leçon d'humilité en fait et de partage boo xamante ne jàngal nañu ko fa bu ñu génnee si cour royale bi dem à côté de la maison bi nga xam ne foofu mooy maison familiale parce que il faut le dire aussi la maison familiale elle différente euh, de la cour royale ba tax na si maison familiale bi en fait mi ngi am benn grenier de riz bu mag a mag boo xamante ne euh, si la ñuy jàppale villageois yi nga xam ne seen Euh, amuloo moyens yi par exemple euh, euh, sa kër amuloon loo leen lekk wala seen ceeb jeex na da ngay jël lekk en fait say say grenier say récipient guddi gi nga dem teg ko si wutu cage bi bu subaa nga ñëw di nga fekk ñu duyal la ko ceeb ba mu fees dell que mu nekk benn soo wala ñaar wala. doo ko mën ci teg en bi dinañ la ko remplir ba mu fees te si sutura parce que en fait da ngay ñëw teg si guddi gi fajar bi nga jël ñoom aussi ils vont pas se demander kan moom monsieur bi wala ban kër en fait ñu amul lu ñu lekk. Hmm. juste pour wax ni en fait que sutura bi aussi euh, présent na foofu trop trop. ñu jógee fa aussi dem si beneen musée bi nga xam ne en fait moo nekk benn village bu tudd Moulombe mu nekk musée boo xam ne aussi. y a beaucoup de présentations qui se font là-bas concernant la culture Joola euh, ba tax na rek dañuy daal di taxaw peut-être sur quatre fétiches yi nga xam ne ñoo fa nekk premier fétiche bi mu ngi tudd euh, ku xulom xaw ma ni ma koy prononcé baax na parce que ce n'est pas ma langue mais mu nekk en fait benn genre fétiche protecteur boo xamante ne ñoom réincarnation euh, dañ ko gëm bu baax Joola yi dafa bëri animiste te ñoom dañu yaakaar ne par exemple nit bu deewee sept jours après dina dellu si récupérer li xam ne mooy ay biens am amoon na ko yëpp ñu daal di ko teg si wutu fétiche bi tout en se disant que dans six jours voire sept que nit ki nga xam ne moo décédé woon dina ñëw récupérer ko deuxième fétiche bi ma daal di gaaw rek parce que xam naa ne temps bi si des bëriwul dégguma mbaa dina ko récupérer ndax dinaa récupérer kii mbaa kii dee dina ko récupérer waaw day ñëwaat récupérer day ko te xaw ma nag par mais on a vu ku dem ñëwaat récupérer waaw waaw puis ñoom aussi ils se disent que les gens euh, qui que dañuy Mm-hmm. ba tax na en fait euh, am na ñoo xam ne sax bu fekkee ne da ngay da ngay juddu juddu yu bëri di dellu mën nañ la sax defal benn marque boo xamante ne boo ñëwee dañ lay xàmmee te loolu yaakaar naa ne yàgg nañ ko wax même fii si Sénégal mais dafa mel ne foofu la ëppee. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy juddu gis seen nopp fii dafa dagg wala ñu juddu gis benn camp benn mandat boo xamante ne bi nga desee dewee dellu moom lañ lay defawal pour sooy ñëw nga indaale waat la même chose. bébé bu juddu. Mhm. di jooy jooy bu bëri dañuy génn dañ koy woowee que wuy. Mhm. ñu di génn dem xool lan lay jooy sa veut dire que benn ancêtre moom moo dellu si et am na lu mu bëggoon wax. Ah. et loolu mag ñi dañuy xam lan la xale bi di bëgg wax moo tax muy jooy. après jooy day arrêté. exactement gis nga rek comme chaque ethnie ak say mhm. ak ay réalité am mu nekk loo xamante ne aussi lu ñu war a gëm la parce que c'est des choses qui existent c'est très très factuel. mos naa mos naa ñuy dem Mbour. mais bi ñuy dem Mbour li ñu doon xooli waa ji ko waa ko moom dafa am ku ñu booleel quoi. Mm-hmm. mais ki ñu booleel ñu ñëw ba ci oto bi. <laughs> mu ñu moom dafay mu ñu expliqué ni moom dafa judduwaat. <laughs> waa <laughs> ñu booleel pour ñu dem foofu mu ñu moom dafa judduwaat. sam papa comme dafa neex mu jéeg saa rek woote alo waaw <laughs> kañ léegi nii daw léegi ok d' mu ni waa ji xam naa kon suba dañuy ñëwaat. daw ma ne ko mais yow lu mu ku judduwaat may ànd ak moom fa laa jëm moom. booy dégg histoire yi quand même te eh, eh, Mohamed c'est des choses qui existent quand tu certains documentaires. Uh-huh. Euh, lu tubaab il te montre euh, ñi demoon dellu si waat. ñu dellu si waatee ban année la ñu décédé ban année la ñu ñëwaat. Uh-huh. ñooñu dañuy dugg si kër gi ñun. nekkoon par exemple seen première vie ne la fii sama néeg la woon fii sama buntu kër la sama drap nii la meloon quand tu regardes ça tu tu parfois da ngay da ngay da nga naan réincarnation c'est ce qu'on voilà ñoom dañu ko gëm de mhm. dañu ko gëm trop maa ngi demoon benn village aussi benn xale bu sob moo ko mës moom da doon toog di nettali en fait hmm. am na yaay am na papa mais doon toog naan man jëkkoon naa juddu sama papa nii la tuddoon sama yaay nii la tuddoon mais maam ji da koy <laughs> xamante ne mais juste pour dire que peut que c'est vrai mais comme xale la et que voilà c'est des choses qui font peur ko wax mais c'est des choses qui existent ah, donc maa ngi ko doon wax léegi second fétiche bi nga xam ne moo nekk ci musée boobu ñu ngi ko tudd euh, ñu ngi ko tuddee Kaxuso dafa nekk fétiche boo xamante ne comme chrétien ni ñuy demee ci prêtre bi en fait pour confesser wu mm-hmm. c'est même chose bu fekkee ne da nga def tort aussi foofu ngay dem nga yóbbu ceeb euh, pour rek daal di confesser euh, da nga yóbbu ceeb ak objet de valeur boo xam ne ça tient à cœur pour daal di confesser mu nekk aussi loo xamante ne da nga def bu fekkee ne par exemple euh, tu t'es permis de regarder une femme accoucher alors que amuloo doom parce que ñoom dañuy wax ne jigéen bu fekkee ne amagul doom wala góor bu fekkee ne amagul doom amuloo droit en fait ngay gis femme buy accoucher ba tax na boo tombé si genre situation yooyu loolu ngay def en fait pour racheter wu mi ngi représenté benn crâne de porc parce que foofu aussi traditionnellement boo takkee jigéen bi en fait si li nga koy yóbbul dafa dafa dafa dafa dafay boolewaale en fait nga jënd mbaam boole ko si parce que crâne de porc boobu en fait mooy tax un peu ñu def benn représentation globale boo xam dina permettre femme bi mu fertile parce que ñi ngi wax ne sax bu fekkee danga takk jigéen te yóbbuwoo loolu noonu soit moom dafay infertile soit mu daal di décédé en fait très tôt cest mu décédé avant l'heure en fait euh, respecter les valeurs de la société parce que sànq maa ko doon wax euh, joolaa du tooñ joolaa du sàcc joolaa du def li nga xam ne waru koo def parce que ñoom ñëpp en fait ils ont été un peu éduqués de la même façon ba tax ne en fait am na erreur yoo xamante ne boo ko defee pour ñu baal la maa ngi ko doon wax sànq euh, fii ñoom dañuy exiger à ce que tu achètes 60 litres de vin de palme euh, jëndaale aussi benn chèvre comme offrande su ko defee rek gars yi partagé defaat la fête pour ñu mun la réintégrer waat ci société bi baal la say toor en fait pour nga dellu si. Mm-hmm. travers bi am merci beaucoup euh, Ziggy c'est très intéressant euh, Mbaye a ngi témoigner sax di ñu wax ni euh, Mbaye Mbaye Pacca Mbaye mm-hmm. Seck di ñu wax ni moom seen koñ yëmbal am na koo xamante ni itam dafa réincarné wu waaye te daf ko gëm mm-hmm. parce que day ñëw ci moom di ko nettali le même choses yi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee léegi Mbaye Paccax ñu ngi koy nuyu bu baax a baax